bokk jël ñu leen ndokkeel doon ñaan yàlla suñu borom mu nangul gi suñu koor jéggal gi suñu bàkkaar di ñaan yàlla musul ci li nga xam ne mooy xeexamu jamono nga xam ni mooy yittee ñëpp mooy li fi xew ci ak jàngoro yal na yàlla teggi fa yàlla dencal ba addu sosoo ba legi xagna na da ko fa yalla delo ñu ngi koy ñaan mu delloo ñu firma dem ta delloo ci sa bopp ñu ko jamm ni nga xamne ñu ko bëgg ñu ngi ñu fatu ñu ko indi bay ñu fi ci wax bu gàtt boo xam ne mooy ëmb lépp moo di ragal yalla top yalla te wolu yalla nañu ragal yalla ci suñu jëf nañ ko wolu ci liñ bëgg nañ ko top ci lim diglé ragal yàlla nag mooy nga wommatu ci ay ndigalam te mooy tere yi wóolu yàlla mooy nga bàyyi ko sa bépp mbir wëlis nga di ko dégg keneen topp yàlla nag mooy nga di ko topp ci li xam noonu la waxee nga xam ni li mu rëdd yónni ndaw li nga xam ni moom la gërëm moom la gën a gërëm ci ay ndawam mu di Muhammad ay saalu salaam na mu diglee rek ñu defee ko noona yàlla yàlla dimbali ñu ba ñu mën koo jëfe noonu Euh, maa ngi dénk ñëpp nit ñu wóolu yàlla te ragal yàlla delloo suñu bopp ci moom te xam ne ab jiit lu ko naqari na xool boppam na xool jëfam natt bii mu ñu teg nag nga xam ne am nattu la na kenn ku nekk jàpp ne ci yow la jógee su ko defee ñëpp ñu àndoo tuub te delloo ko suñu bopp te mu jéggal ñu suñu ñaawteef mboolee suñu ñaawteef te xam ni moom rek mooy buur bi ay jaam rek la no moom lañ sañ a tooñ moom lañ tooñ mooy borom jéggal yi nañ koy ñaan mu jéggal bi yal na yàlla defal nu dégg ak topp yal na yàlla saafara bépp jàngoro yal na yàlla koo xam ne tawat nga ci tawat yii yal na ko yàlla saafara kum dalagul yàlla bu mu la dal nañ dëppoo ak ndigal yi nga xam ne nii moom la waa ko docteur yi digle mooy di moytu tey làmboo set tey sorente tey takk masque yi tey laal ci yi nga xam ne moom la ñuy laal ci loxo gel yi tey raxasu ak saabu te lépp loo xam ne dañ ko digle luy ci mën a musle ñu def jëfe loola te ñaan yalla suñu borom nak mu musal ñu mi nga mo ne musulé ma ngi koy denk ñepp diko tax mi tay ne xuddu bi non lay mën démé ndax jamono yi limu laaj bi fi ngi nañu waat ci kër yi te jëfë ndigal yi nga xam mom moom lañ digle di ñaan yalla ñi nga xam nit bi tay tey taxawuñ julli gi ndax eh, ndax tawat ji li ñi ragal ci tawat ji yalla na ci yalla buñ ko bu kenn gis xalaat bobu ñu am ba tax nga xam dañoo ragal yalla yalla jëg ci xalaat bobu ba musul ci ñepp ñi nga xam tamit dañuy julli te bëgg wuuti ñepp ci julli yoyu ñoom itamit li ñu xalaat ci julli gi ak yaa ngi ñaan gi ñaan yàlla suñu borom yan na ko yàlla nangu ba jéggal ñëpp pour yàlla yàlla jéggal mbooleem jullit asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu jërëjëf baal leen yàqu de yàlla boole baal

diru koor gi yalla dafa dogal ñi and ak imam mas muy def bayan ak diñu ñu fàttali yi nga xamanteni ni doon nañ ko naafila ci weeru koor eh, ginaaw biñu and ak mom nak ci koor gi yëpp xam xew-xew bi nga xamanteni ni ci jamono ba mënu ñoo daje di and di ndo ci jakk ji ñu daan and ak mom ci kërëm daan jël naafile yi daan and ak momit mu daan waxtaan waxtaan yi nga xamanteni daan nañ ko taataan ci weeru koor ci jakk ji ñu ko daan ànd ak moom it ci këram tey yàlla may ñu ñu matal koor bay julli it fekk fi imam ànd ak moom ci waa sunu TV 221 ànd ak moom ci julli gi euh, kon imam ginnaaw bu ñu la nuyoo di la jaare di la ndokkeel ci bi tey ban yëg-yëg nga am ci xew-xew bi nga xamante ni jamono xewee na ko ak ni nga xamante ni tey taxawoon nañ ko jullee ko it إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 te ñu baaxoo di ko ànd ci bépp xeetu jaamu yàlla loolu yëpp euh, dafay tàbbi ci benn gi nga xam ne moo war a àndoo jullit yi war a bennoo tàbbi ci àndandoo gi ñu war a àndoo tàbbi ci laabirante gi ñu war di laabirante ñu ñëpp xam nañu ni ndaka jëkk dañu naan ànd ci biir jàkk ji ci weeru koor bis bu njëkk bi ba ci bu mujj bi bis bu nekk ñu wàcce kaamil jàkk ji loolu la baaxoo woon waaye nag liggéey boobu li nga xam ni eh, ren moo ci moo gàllankoor jëf ji la gàllankoor ndax defe wuñ ko ñu koy defee waaye eh, ñu ngi yaakaar yëmale suñu borom moom mi nga xam ni moo wax ni ab jullit boo xam ni mi ngi def jëf ju baax bu demee bu mënatu ko pay ga day woy day daw kon nag ñun ñëpp ñu bokk rafet jot ci ni eh, nañ ko daan defee defewuñ ko noonu waaye ñu bokk yaakaar yàlla sunu borom ni pay ga waay dara du ci wàññeeku li kees bi mooy yëg-yëg bi nga xam ne moom laa yëg mooy yëg-yëg bi nga xam ne mboolem julli ci àddina moom lañu yëg mooy jàpp ni sunu borom denc lu ñu mitit denc lu ñu naqar denc lu ñu tiis li ñu denc rek mooy yiw nga xam ni lu ñu naqarul nekk dañ koy peese ci kem sunu jëf ju ñaaw nu mu tolloon mu bëgg nu ko faxasal fii njëkk ëllëg loolu nag li ko ab julli tuddee mooy nattu du naqar waaye nattu la nattu na li ci yàlla diggee tax na kenn ku nekk war nga léeg lekk sax nga di ko sàkku ndax mag ñi baax ñu fi jiitoon ñëpp dañaan toog bu fekkee toog nañ diir boo xam ne yàlla nattuwu leen mu ñu wal ni dañu wax seen borom ni ko ndax da leen a booba du yëguñu miti du natt bi waaye pay lañ gis kon gépp jaamu yàlla goo xam ne yaa ngi koy def doo tiis ba nga koy daj daj coono ba koy daj doyug naqaroo nga daj bu fekkee da nga ko nattale peese ko ak pay gi nga xam ni moo cay jóge kon nag li may yëg rek mooy ñun ñëpp ñu xam ni euh, natt lañ gàddu boo xam ni ci sunu borom la jóge nu muñ ko te xam ni moom rek moo koy tege te yaakaar ko te xam ni li ci jóge ci ak pay yii képp la doon loo xam ne day ñëwaat ci noonu ñu sant ko nag ci loolu cant koo xam ni ni mu ko waxee cant gi mu nee su ko matale nu wa in ta'uddu ni'matallahi laa tuhsuha kon nag loolu rek laa am lu ma ciy yëg xanaa di sant ñëpp tey jégalu ñëpp di ñaan ñu jégalante ak yi dox suñu diggante ñun ñëpp nag nu booloo dellu taxaw ci kanamam jégalu ko bàkkaar yi nga xam ne nii moom la ñuy làmboo saa su nekk tey yaakaar njégal ko te xam ni njégal du jóge ci fenn fu dul ci moom moom rek moo ko mën a jégalee su ko defee ñu delluñ ci suñu sagoon na nga xam ne noonu lañ ko bëggee woon ñu am yaatu yi di am jaxasoo gi di man di gën di laabirante di gën di man di jegente di gën di man di saafonte loolu yëpp nag di tàbbi ci islaax bi nga xam ne moo nekk ci diggante jullit yi yàlla nañ ko yàlla defal te ñu fekkoo ko te muur la ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh imam tey yàlla yi nga xamante ni ànd nañoo ak yow ci liggéey bi nga xamante ni tey bokk taalibe yi bokk jullit yi ci gox bi yëpp génn nañu ànd laxasaayu euh, ba tey ni ñu ko bëggee yàlla may ñu ko ñu defee ko noona euh, lan ngay soññee ci bokk jullit yooyu seen taxawaay. taxawaay li ma si yëg rek mooy euh, fàttaliku ba tey li ma waxoon ci benn jullit yi rek ndax itam jullit moom fu lu baax nekk yiw nekk rek moom la fa nekkal. mo xam ndax dina ko jëli wala du ko jëli waaye bépp yiw ak fu mu mën a nekk rek julli ñoo ko moom kon taxawaay bi nga xam ne moom laa taxaw dama ci wuute samay morom rek ñi nga xam ne taxawuñu ko tey jii te nga xam ne li leen gàllankoor mën na maa gàllankoor ñoom dañoo tànn toog tey bañ a julli ji ngir yaakaar seen yaakaar suñu borom mi ni boole moom ñëpp ni moom li mu li li li li xam ne moom moom leen may tey mooy addis joxe na bu wér ni bu mbas amé wala bu yu ni bu amé ku ne ma nga dem fa nga nek nga julli ko fa budé julli farata waxuma lak budé julli bo xam nak du julli farata nafilé la. kon nak ñoom itam nga xam ni taxaway yoy ñam am ko waxee légui ci xuddu bi rek taxaway yoy nga xam non lañ ko gis yegg yoy ci am yalla yalla fekk leen ci ba safar jangor yeb may tam nga xam man damay na wut rek ci loolu nekkal leen fi ñu nekkal ma ci kër ya limay nekkal nyan tamit ma ngi ñaan ngi ñaanal sama bop di ñu ñu ñaanal ma ba taxaway bi taxaway fi nga xam ni moy ñaan suñu borom mu dindi fi mbas mi ñaan googu tamit yàlla boole ñu ko nangul ñun ñoo xam ne ñoo ko taxawee. lan ngay soññi ndaw ñi ci barabu jaamukaayu yàlla bi. xanaa ndaw yi moom euh, dinaa leen soññ laam ndax ku ne ci aw yoon euh, faaw ñu soññ ko waaye nag li may jiital mooy sant yàlla ci ñoom maa ngi sant yàlla bu baax ci ndaw koñ bi ak ci ndaw dëkk bi mboolem koo xam ni yaa ngi nekk biir géejoo yeewoo fi di ndaw maa ngi lay sant maa ngi ñaan yàlla yàlla bàyyi fi mag ñi waaye ndaw yi dalal nañ sama xel. ndax ànd nañu mën ci liggéey bi fu mën a doon ak ci lu mën a doon du jàkk ji rek fu ma leen soxlaa ñu ngi mën nañuy déglu bu ma ñëwee ci jàkk ji tamit fu ma gesoo gis leen sama ginnaaw loolu nag mooy dal na sama xel lool li ma ciy def daal soññe bi daal mooy euh, ñu gën a góor góorlu te xam ni ku nekk ci aw yoon moom di dox li ñu lay sant rek mooy nga rafetal dox wi waaye ku joxoñ ab dëkk tegu ci yoon yoonoo yàgg yàgg yegg ci dëkk ba kon nag alhamdulilah rabil alamina ni ngeen xam ni yéen a ngi tegu ci yoon woo xam ne nii mooy yoonu njub mooy yoon wi nga xam ne moom la yàlla gërëm euh, li ges nag mooy rafetal doxin wi te xam ni jëtte yàkkamti ndax ak sara yàlla wax yëpp ñaar lam cee teg doon lu ñu bëgg kon nag nañ yàpp bokk ci xalil yi nga xam ne dañu di segg yaan yàlla seggal ñu suñuy jëf yu te nangul nu ko saxal suñuy jéegu mu dëgg ko sax euh, lépp loo xam yi ñoo ngi koy wut te sunu borom rek tax yal na ko yàlla yombal seetaane fu mu nar a gàllankoor rek yàlla ñoo ngi la ciy wóolu ngar ndal ñu ko kon nag alhamdulilah rabbil alamin bi ma amee ndaw yoo xam ne nii maa ngi ñoom ñoom maa si jamono nekk ak ñoom te lépp loo ma dugg lu may dugg lu nekk bu ma naree juum ñooy samay soldaar yi njëkk a taxaw fànq ko te loo xam ni jàpp naa ne lu ñu gërëm tamit ñu ànd ci ak man ci loola asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi gërëm mag ñi nag bu baax itam maa ngi gërëm mag ñi bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla ñu mucc samay kiiraay lañu sama taar lañu. Euh, ñi nga xam tamit ñoo daan fi ñëw ci wàllu aada nga xam ni ñoo ñoo yilif dëkk bi ci aada ñëpp gis nañ ni ñëw ñëw waaye la may wax laa leen waxaat rek. muy kii ko jiite di bay di sëy ak ñi muy àndal ñëpp nañ jàpp ni ñu ngi foon ndax du ma weddi sama bopp te maa leen waxoon leen fu ngeen nekkul ma leen fa fu ma nekkul ngeen nekkal leen fa loolu la ma waxoon nag nañ xam ne tey laa ko gën a gëm tey laa ko gën a dëggal mel na ni ñu ngi taxaw maa ngi ñaan yàlla nag commune bii ñu jiitee ak feneen fu dul fii lépp loo xam ni ñu ngi fay dox tey euh, muy jëm ci euh, li dimbali jullit yi yal na yàlla yombal leen ko defal leen ci ndam boole ñu ko defal ñun yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu nii la ñu àndewoon ak ñun waa sunu TV 221 ci imam Masek àndoon ak moom ci weeru koor ba yàlla may ñu kattan ñu ànd ak moom julli iid gi euh, ñu bokk taataan mu ñaanal ñu ñuy yeewu te tàggatoo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 ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرت فانصب إلى ربك فارغب ولا مزر فلا من شر ما خلق من شر خاسق إذا ما خلق من شر الفاسد في العقد ومن شر حاسد إذا أسد ولا أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين أصبر ستوري أصلح أموري كشر قيوري بلا كداي وافتح لنا كل باب كنت فاتي وسالم من خيرات يا الله ودمرا كل أعداء